inoga ina yon ba irip jaga oe na mama waaw waaw mi ngi noonu deuxième combat ci biir géew bi di dox si diggante Bombal Gueye Ali moom ngeen jàkkaarlool Bombal moo leen wan ginnaaw nee naa la tey la dimanche juillet Bombal face à Gueye Bombal face à Gueye Ali. mooy deuxième la la ilaha illallah. 14 juillet 2024. ñaari xale yi li ñu wax war ci face à ba. ñu xool ba xam te dinañ ko dëggal attention. Gueye Ali mi ngi jógee fee ci yëmbal. Bombal moo ñu wan ginnaaw. Ah, waaw Bombal moo wan ginnaaw attention Gueye Ali cokkaas na léegi. waaye Bombal mi ngi changé changé pied ñaari yoon. waaw waaw équipe bi bas ko nekk. ñaari xale yaa ngi doon dagg na leewtoo bi di dégloonte deuxième combat baa nekk noonu waaw Bombal moo ñëwoon ginnaaw Gueye Ali moo jàkkaarloo ñun Bombal Gueye Ali Bombal dagg na taxaw Bombal Gueye Ali ñu ngi Ali tuus na léegi benn góos bu daal waaye bomba mi daa bëgg a doon ci ma dóor dóoral fayu dóoral ma dóor ba eh, dóor ba dóor mu daanu du ba dóor mu daanu du laa ilaaha illallaah waa xale yi ñimente nañ de waa xale yi bombal jéggi doon yóotu ba eh bombal gay ali attention bombal mi ngi dóor attention waa ba daanu du am daw na jël na ko ñaar roofoonte

production organisé xoolal PDG bi Ndiambour production yi man loo organisé. Petit Sadio moo dogal seen ci di. Aliou Ba nga wax ak ñoom naa leen bëre leen. Habib bi nee na bëre leen. boppal ci di coach ma bu may bëgg dogal see. Sango joxante na fi dóoral ma dóor. eh ñaari xale yi. ñaari xale yaa ngi noonu. parce que nee na nga ànd nga sa borom taxaw déglu ko. waaw tolloo ci attention. bombal mi ngay jéema attention mënu koo xëcc mu ñëw attention attention laay laay la la bombal gay ali ñaari xale yaa ngay bëre attention bombal

bëri nañ ba sonn ndeysaan ñaari xale yi ndeysaan mi ngi noonu Gueye Ali siisu na hey jël bi leer na jël bi amul benn werante